asalaamaaleykum mbokk internet yi dal leen jaam seen seen Leral Foot TV gars yi ñu tey ci information yi tey dañuy waxtaane ci formation ni moom nga xamante ni il est tout près dalee fële ca Lille ak Sadio Mané nag mu xamante ne moom tamit gars yi c'est sûr que dina jóge fële ca Liverpool ak Ousmane Dembélé actuellement club yu bëri ñu ngi koy ciblé formation Mendy nag gars yi actuellement mi nek fële ci Amiens fum mu Lille mu nek fële ci Ligue 1 française actuellement ñom ñoko nek di cibler formation Mendy nag mu nek ben défenseur central international sénégalais très prometteur ren di nak def na saison bu baax ak wa Amiens nak ci lool nak actuellement Lille ñu ngi koy cibler bu baax baax pour jënd ko indi ko dem fofu mu jàppale leen Ousmane Dembélé gars mom moom solo ah, selon les informations ko yu ñu jot Liverpool ñoom tamit dugg nañ ci dossier yoo xamante moo di Ousmane Dembélé d'ailleurs ko signéegul ba léegi renouvelé wu contrat la ñu mën a wax ba léegi ak waa xamante ni Barcelona actuellement nag Liverpool tamit dugg nañ ci dossier bi ainsi que tamit Chelsea tamit ah selon les informations Chelsea tamit ñu ngi ci course bi pour jéem a recruter Ousmane Dembélé actuellement il est courtisé par de beaucoup clubs en Europe gars yi Sadio Mané nag moom tamit ah ñu ñoo wax ci moom actuellement gars yi selon les informations nga xamante ne relié ak Marca Nsinko Build ak yeneen yeneen média yu nekk fële ci Europe nee nañ nga carrément que Sadio maane def na au revoir am ak nga xamante ni ñoo di waa Liverpool ainsi que ak club bi yëpp nga Sadio Mané dina jóge foofu ca Liverpool déwén dina dem solo les informations fële ci xamante moo di na Bayern Bayern Munich la gën a jege di leen rappeler Bayern Munich joxewoon na benn offre bi nga xamante ne moo di 30 millions d'euros pour jënd Sadio maane nag léegi il reste à voir que temps dossier bi nu muy demee bu weesoo loolu ah ñëw di wax ci xamante moo di Noah Lang mu nekk fële ci xamante ne moo di Club Brugge ah mu nekk benn néerlandais très prometteur ci loolu nag bu actuellement gars yi il courtisé rawatina ci waa Milan ñoom tamit pare nañ jënd ki xamante moo di Noah Lang pare nañ teg ki xamante ne moo di 40 de d'euros pour récupérer ko. bu weesoo loolu ñuy dem fële ci Angleterre ah ñu wax ci Ngolo Kanté selon les informations yi ñu jot ci xamante ne moo di Sky Sport ah actuellement nag waa Manchester United. préparé nañ ñoom pour jënd Ngolo Kanté bi ci Chelsea naka malgré que plusieurs blessures mais naka actuellement Manchester United préparé nañ ben offre jëmele ko ci Ngolo Ahmadou Bamba Dieng ah, l'international sénégalais il est mis en vente ans. Ah, que ko parce que actuellement bokk na ci yi nañ ci liste des transferts war leen mën a jaay te actuellement prix 15 millions d'euros actuellement Ou Marseille loolu lañ ne 15 millions d'euros mën nañ la jaay Ahmadou Bamba Vous di leen club yu ñu comme xamante ainsi que Newcastle bi League ok gars tey di vous ko info di bu abonné ngi aimé vidéo yi la di jox dig vidéo